salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani halama jërëjëf borom Touba amul moroom jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba ragal péete mën naa tax ba nit ñàkk lam amoon banaa ñépp tey faf mooy ci buumu borom Touba jaloorey borom Touba xanaa rëy ga na leen da ko nettalil boppam ku mën tey na moom Touba ànd ak yow bisub ci doy na lay ku juuyoog Serigne Touba du gis gaay jëm Touba. waaw ñu xam ni ñu fi indi rek waaw ñu xam ni ñu fi rek xam ni ñun fekk si tamit waaw lépp Touba moom dëkku tawféex la comme ni nga ko waxee rek waaw ni ko sëñ sëñ bi diglee rek ñu yaatal gan yi dalal leen ñun tamit ñu xam ne dañoo màggal si màgg moo ñu indi si ñu nekk si li nga xamante ne moo ñu fi indi waaw su jeexee ñu dem ñibbiwaat waaw maa ngi doon yegg si kay. man Saint-Louis Saint-Louis laa jógee. Uh-huh. dafa mel ni yoon bi dafa xat de. dafa xat moom xanaa trop moom. Uh-huh. kañ nga quitté ak ban heure nga yegsi. ay 9 heures laa jógee Saint-Louis. Uh-huh. ay une heure yooyu. waaw noonu la yoon bi. léegi yoon bi. xanaa xat rek. xat na moom a xat na moom. na ko. ok jar na ko moom jar na ko ëpp. paas yi baa gaa yoo. paas bi ah yokk nañ ko rek waaye nekkul loolu nag waaw. Ah. waaw xëy war rek sëñ sëñ moom jar na ko moom waaw. ne da ngay ñëw dem sa dal. waaw fan la sa dal. sama dal kër sëñ Cheikh. Uh-huh. kër waaw. waaw. ok maa ngi dolli siyaar waaw maa ngi door yegg si de gis nga de ak naaj wi. Ah, foo jógee nii. <laughs> laa jógee nii de. ah bon <laughs> ban heure nga fa quitté. maa ngi fa joge ay 7 heures suba rek. di door a yegg si sànq nii ay 14 heures yooyu rek. mais yoon bi dafa mel ni kon xat na de. eh yoon wa xat na xat na lool xat na lool métti na waaye nag faaw rek ñi kii ndax sëñ bi jor na lu raw lool. dëgg la lim lim lim daj moo raw lu lool lu mu daj daa raw na lool daal. waaw moo tax daal ñu ne faaw dañ ko jaayante te xam naa itam yoon wi métti na paas bi xam na ñun daal dañ heures du matin daal lañ jóg waaye balaa ñaa am oto daal 9 heures na 8 te gis nga ñu ngi door yegg si dëkk bu sedd bi dëkk bu sell bi di Touba Mbacké waaw. naka li nga xamante ne moom mooy màggal gi mu des 48 heures. màggal gi nag xam naa ne comme nuñ ko daan kiiyee rek comme nuñ ko daan defee rek maanaam nu ko daan sëñ bee digalee daal maanaam nu ko daan nongee di defee daal xam nga rek ñëw daal xam na daal ñun daal màggal moo ñu seen lépp xam ne xam lu sëñ bi santaane. xam li sëñ bi di tere ñi di ko mais nemmeeku nañ fi benn insécurité bu doy waar hmm. charrette yeeg oto yeeg nit ñi nga xamante ne ñu ngi romb insécurité boobu noonu est-ce que euh, jotul ñu jël ci ay matuwaay yu kii bala moo jur ay jéey waaw jor na ko kay jor na ko laay la ndax ñun tey jii ni ins bi ni fi ñu di daan wàccee daaw ren wàccee wuñ ñu ñu wàccee gannaaw gaaraas daaru hmm. ñu dox di ñëw ndax lool yëpp li ko waral mooy circulation bi ak xat-xat bi léegi loolu faaw gars jël matuwaay waaye yaakaar naa nag xidmatu xadim am na liñ li liggéey bi daal dañ ko ci def xam naa ne gars yi jombut dañ ko si jël daal balaa affaire yi gën a xat ndax lii mu ngi mel ni suba la te gannaaw suba la màggal gi te jombut bu ñu si jëlul matuwaay yi ñu si war a jël dañ si gis loo xamante ni si daal du ñu neex kon ñu ngi ñaan gars yi daal ñu jël si seen matuwaay bu baax a baax waaw waaw kay jaajëf feex màggalu jaam ak salaam wàccaay naka nga ko jàngatee ndax fi mu ne nii dëkk bi commencé naa xat ak tàngoor waaw wàccaay bi fi mu toll nii gan ñi dañoo dugg si moo waral mu xaw a xat ak sareet yi ak lu mel ni oto yi fu nit nekkoon rek mën naa ne lii sa yitte dagg nga ko ñëw bëgg dugg si Touba loolu mën naa ne moo tax mu dëkk bi xaw a xat lool xataay bi nag loolu ñuy wax euh, loolu ñuy wax xol yi xol yi buñ ko yaatalee rek kenn ku ne jàpp ne Serigne Touba moo woote te Serigne Touba nga wuy si Serigne Touba mi nga wuy si nag diirëb la mu woote ak li nga ko wuy see rek luñ la si mën a def war nga koo muñee Serigne Touba ngir natt yim daj soog am lii soo koo woote te bu ko neexoon du ko woote bu ko woti wutan kenn du ñëw. loolu it maa ngi si laa si appel mboolem jullit bi yàlla bu mu mën a doon rek nga xam ne benn xol buñ la defee lu tax xol di jugit mu bañ a jug rek ngir bis bee ko waral ngeen saafante rek jéggalante ngir sëñ Tuubaa ndax loolu la woote ba sañoon Cheikh Mountakha mi woote ne ñëw leen santale yàlla sëñ Tuubaa ñëw jàppale ma si santale gi yàlla gi ba sañoon kenn du am lu la naqari ba keroog ngay delluwaat fa nga jógee si anam yëpp nag waaye di wax policier seen liggéey ñu gën see lu bu baax a baax ñi nga xamante ne si rawatina ñoo mag wàllum borom seret yeeg borom oto yi ndax benn instant nga gis si borom seret ak borom oto ñu gaañante bay bëgg a jàppante te loolu lépp kenn ku ne bu awee fañ la awloo ñoom yaakaar naa ne policier bu ñu defee la ñu war a def dëgg-dëgg yi la war a def buñ ñu defee rek loraange mën naa bañ a bari donte day am ku woo mbooloo nag loraange am coow am waaye mbooloo moom it dana am ñoo xam ne nii dañ leen war a mën a defal si kenn ku ne xam li la tax a jóg ku xam leen fii si rek mën naa ne ku la lor rek da nga ko muñ ngir Sëñ waaw loolu la loolu laay dolli si loolu. jërëjëf sang bi. am si mbégte rek. Uh-huh. waaw. Ah. lan ngeen di wax taalibe yi nga xamante ne ñoo ñëw pour màggal si màggalu Sëñ Tuubaa ji. ah ñu góorgóorlu rek. Uh-huh. jàpp si liggéey uh-huh. dañuy gis insécurité bi day bari trop ci uh, màggal gi charrette yeeg oto yeeg ñëpp dañuy daje loolu aussi lan ngeen ci wax. ah ñu moytu rek waaw. la. man Nafi. Nafi Akassa jërëjëf. waaw Kaolack laa jógee. naka ngeen nar a dundee màggal gi. màggal gi ah instant bi moom ngi koy bu baax neex na trop vraiment. kon dégg naa sinap rek ngeen fi nekk. non ñëwuñ pour sinap dañoo ñëw pour liggéey sëñ Touba rek. ah Akassa yàlla sëriñ Touba nangu مد الغبير والكبير ولا يبور من الله صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبصار